voilà mbokk internet Barham Universel Média ñu ngi fii ci Nioro di Rip arrivé du xalif général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass fii seet mbokk taalibe ci jiitalu Cheikh Baye Diawo Cheikh Ousmane Diawo di ma baay bu mag ay xalifa bi ñëw gane si ko nii tey si ko mu takku mii nii teg si ko gis nga dafa jox la ah waaw mais la noonu la la noonu la dëgg la dëgg la naka wut lépp taw feex waaw Lamine yéen ñuy suivre fii en direct ci Barham Universel Média ñu ngi fii ci Nioro du Rip arrivé du khalife général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass ànd ak délégation ñëw fii sur invitation du muqaddam bu mag al muqaddam bu baraka Cheikh Ousmane Diaw mu nga xam ne moom moo nekk fii ci Nioro di liggéeyal baay liggéey bu rafet. ci taarix ñu fàttaliku moom moom lañ dënkoon liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey kër baay googu kër baay ñas kër Maam Cheikh Alioune Sall bi nekk nit na mu réceptionné waat ko si ndigalu Cheikh Serigne Mbaye al Mousanna muy Baye Mbaye MC ak euh, inauguration nga xam ne teewoon na fa mboolem kilifa yi nga xam ne nit nit na ci al Khalifa Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass yàlla na yàlla leeram ñu ngi fii ci Nioro du Rip al Khalifa Mawlaay Cheikh Mouhamadul moom mooy agsi nii ànd ak mbooloo mu takku ngeen mbooloo mi niñ bëree teertu ko depuis ci buntu dëkk ba ba ci entrée bi jël artère bu mag bi nga xam ne moo jël côté Camp Sapeur jàdd jël tali bu mag bi ñoo fii ni wut ci kër Cheikh Baye Diawo ci ngan goo xam ne visite boo xam ne daf koy faral def ci kër Muqaddam yi tey mu ñëw fii ci Nioro gane si waa Nioro gane si mboolem taali Mawlana Cheikh Al Islam nga xam ne ñu nekk fii ngeen koy am en exclusivité fii ci Barham Universel Média en direct ci Nioro ñu leen di leen ziar fu ngeen mu nekk ci àddina bi ngeen di ziar leen asalaamaaleykum wa rahmatulah ngeen teewlu si kër gi ñuy suivre ba léegi ci Barham Universel Média ñu ngi fii ci Nioro du Rip arrivé du khalife général de la Fayda Tidianiya Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ànd ak délégation bu tàkk bàyyi ko mbir na ñëw seet si muqaddam yi nga xam ne mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Nioro ci jiitalu Cheikh Baye Diawo Cheikh Ousmane Diawo ñu ñëw nii di arrivé nii moo ngeen di gis teert nii teert bu ci ayib taalibe yëpp a génn yi depuis ci Cheikh Ousmane Diawo léegi tey rek incha allahu rabi parce que nañ mbedd bi nga xam ne moo jëm këram sikkat yi di leen di accompagner taalibe yi di sikkat noonu kenn bàyyiwul ay góor ak ay jigéen li ci ëpp ay ndaw ñëpp ñëw teex si xalifa bi ànd ak seen muqaddam Cheikh Ousmane Diawo ñëpp ñëw génn di ko teertu ñoor yëpp sax mën nañ ko wax parce que tali bi fépp a fees dell moom ngeen di am ni en direct en exclusif ci Barham Universel Média di ñaanal xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi defar di teet sëriñ bi ah. loolu yéeme na ban message ban message ngay wax ci teet bi ñaan mën nañu daal ñëw wàññeeku teet xalifa bi Cheikh Macky Cheikh yaa ngi en direct ci borom bi seen média ban message ngay lancé yow mi nga ne gis nga xalifa bi doom waaye <laughs> tey Cheikh Macky. waaw nga xalifa bi ban message ngay lancé si loolu. sant yàlla bu baax sant yàlla rek. ñu lay suivre en direct ci Barham Universel Média foofu mu nekk ci àdduna bi gaa ngi lay suivre. Ah. waaw lancé benn message rek. parce que am na message bu ma lancé ñu leen jaajëfal rek. alhamdulilah kooku doomu xalifa bi la Cheikh Mouhamadul Macky Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass moom moo doon teetu papaam noonu yéegoon ci fas yi nga xam ne moom la Baye Diaw yebal fii ay mbokk taalibe yéegoo di teetu xalifa bi ci buntu dëkk boobu fii mu ngi nii di waaj a ak ci këram. ngeen mbooloo mi ni ñu a takku koñ beeg maanaam mun nañ ne Nioro daal ñëpp a génn ñëpp a ngi ci Barham Universel Média ñu ngi fii ci Nioro arrivé du khalife général de la Fayda Tidiania Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne képp kuy taalibe ci àddina bi toll nii moom mooy sa njiit moom moo agsi nii ci Nioro ngeen koy suivre en exclusivité et en direct ci Barham Universel Média taalibe yëpp génn mbokk taalibe yëpp génn ñëpp di ko tepp tepp boo xam ne macha allah ci Brahim Universel Média ñu ngi fii ci lu yéeme xalifa bi day arrivé day yegsi lii di taw bi ñuy agsi fii si Nioro xalifa bi di agsi asamaan si di commencé di taw lu yéeme fi ñuy arrivé kër Cheikh Baye Diaw asamaan si di commencé taw Cheikh Ousmane Diaw Baye Diaw moo nekk di taalibaay yëpp alxalifa Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass balaa xalifa bi agsi di wàcc këram gis ngeen asamaan gën muy taw. lii sëriñ bi indi moo rëy rek. alhamdulilah yal nañ ci bokk ñëpp. allahu akbar macha allah macha allah macha allah ñu ngi leen loxeel baax.